asalaamaaleykum mbokk internetu Leewtoo TV tey ñëw nañ fi nga xam te ni mooy golf daral beneen daanaan ki may bëgg a daral nag mooy kan l' enfant de Casamance l' enfant de Guédiawaye l' de Golf Sud fils de Double Less et frère de Balla Gaye 2 loolu mën na ndam kooku bu ñu ko tuddee tudd làmb bu ñu tuddee làmb tuddul ko Salif nuyu naa la waaw maa ngi sant yàlla baax di julli cont bi di jiite ci kàddu bi tamit ñi génn àdduna yàlla ñaan yàlla aussi Sénégal yàlla fi jàmm yàgg mbas bi fi am aussi tamit yàlla teggal ñu ko aussi tamit lépp lu ndoroog moom it yàlla bu mu fi yegg ci barkar Xuraan. amiin Salif Sakho lamb nam la fii nga nekk. <laughs> waaw lamb ñoo ko nam ndax moment ñu moom ku ne xam ne li fi xew ak li baare lamb te te ñëpp a ngi ci aussi ñu ngi ci mot mesures yi ñu ngi ci matuwaay ñu ngi ñaan yàlla aussi tamit yàlla su borom dàkkal ñu ko. ak Covid bi nan ngay dundee lamb ji ak Covid. actuellement moom métti na moom ndax fi mu toll nii sa biir kër nga mën a entraîner ay saccage ñu lay yox ngay def ko parce que kenn mënatul dem géej kenn mënatul dem diine kenn mënatul dem aussi salle de musculation yi ndax fermé nañ yëpp. Sa Thiès en tant que mbër a Covid bi nu demee nii crise bi nekk ci làmb ji nga ko dund financièrement psychologiquement nan nga ko dundee Sa Thiès en tant que mbër jeune. waaw métti na moom métti na parce que xam ni ku nekk la nga tàmbali moom ngay dundee. ñun dañoo tàmm même bu bu dul combat sax dañuy dem entraîner normalement parce que loolu lañ jël nii mooy suñu métier bopp. xam nga duñ demee ba loolu tamit ñu baare ko ndax li fi xew te aussi dañ koy nangu ndax euh, nangu nañu yàlla moo wàccee loolu aussi xam nga yi ci war yëpp aussi tamit. ñun exemplaire lañu yoo xamante ni war nañoo mën a wane li nga xamante ni mooy lu yoon te yaakaar naa ni mbër yëpp ñu ngi koy def mbër yëpp a jël seen masir toog seen kër bañ a sori waaw jël seen matuwaay. laataa ñuy xuus ci biir actualité làmb Salif Sakho nga nekk jeune ñu delluwaat tuuti ci ginnaaw sa jaar-jaar ci làmb ñëwuñ tuuti sa jaar-jaaru làmb. sama jaar-jaar làmb moom ku ne xam ne man moom ci mbapat laa débuté. mbapat laa débuté di bëri sama koñ di génn di bëri yenn secteurs yi xam yenn saa yi ma sob jëm ci àll yi parce que loolu yëpp da nga koy def ngir ëllëg parce que xam nga boo bëriwul mbapat jékki-jékki ñëw bëri arène am na lu bëri doo ko mën a xam ci biir nit ñi. mais xam-xam yi nga xamante ni nekkul ci yow nga dem di ko dajek sa am seen seen seen naataango koo xamante ni bokkoo leen di ngeen di bëree xam nga war a mën a fexe ba daan ko loolu dafay bokk ci li tax tamit nga mën a yeewu ci làmb te dina la mën a dimbale ba tey jii xam nga lu bëri ma jàngal ko ci loolu. nga ne jaar jaar jaar nga mbapat. waaw bëri na mbapat moom mbapat moom. pour dund mbapat di nga dund expérience ban expérience moo la gën a marqué ci li nga xam ne mooy mbapat di ngay bëri boppam bi de. ci lutte bi tamit aussi lutte avec bi ba nga duggee ci arène lan moo la gën a marqué. li ma gën a marqué mooy euh, am na suma bët su ma ko tegoon tegoon ko ci benn benn condition nekk âge bi à bi ma tàmbale mbapat bi période bi laa bëgg a tàmbale arène heureusement yàlla suñu borom sutural la ma période boobu laa tàmbale. aussi itam ba ma duggee ci arène amoon na mbër yi ma visé woon ni bëgg naa bëri ñoom balaa balaa nanga nangami at aussi tamit yàlla suñu borom te jàppale ma ci ma bëri ñoom balaa at boobu loolu moom bokk na ci li ma gën a marqué aussi te xam nga lépp loo gisee débuté mooy mooy mooy mooy wax ci parce que te débuté dafa am ñoo xam ne lañ ci am te duñ ci àggali am ñoo xamante ni euh, dañoo jikkoy Cristiano Ronaldo waaw ñoom moom li ñuy nit ñuy débuté dañuy xëy di ko gën a bëgg di ko gën a di ko gën a yokk waaw man nag ci moom lay rootee daal ci côté boobu ci loolu ba nga bëreeg mhm. la ci gën a métti <laughs> ah, la ah dëgg yàlla wax dëgg yàlla défaite défaite la xam nga parce que bii ni mu lay dikkee rek benn yoon lay premier défaite mooy gën a soge xam mais défaite moom du loo xamante ni lay neex parce que burul dara sa supporter yi coono gi nga daj ci làmb xam nga say nit yi nga xam ne yéen nan la victoire yi. sa noonu yi nga xam ne ñu ngi xaar say défaite aussi loolu da ci joué mais nag o dëgg yàlla mooy li may wax chaque jour man bëgguma défaite mais tamit su ma ko amee dama koy sant yàlla ndax suma yaay yàgg na ma di tàmmal loolu aussi tamit xam dama xam ni nit laa ñi may bëreel gënuma leen day gënuma leen bàyyi ndax li ma daj daj nañ ko fu may dugg pour yaakaar fa am fa ndam ñoom dañ koy dund waaw. mooy Salif Sakho nga ñaari défaite ban jàng la ci te ñaar défaite yëpp. excès de confiance à moo la ko yóbbee Saliou da nga ñëw indi xararu xararu xale bi man que il faut nit ñi xam ak ràññee. xam kii li lan la mën ak lan la war a def ak lan moo ko war gis nga ku demul yaa ngi xaar te demkat chaque fois mooy ëpp gàcce nga xaarkat bi man nag euh, du ma entraîner plus de ay 6 mois wala 5 mois wala 4 mois war a xam mbër bi fu ma koy jaar arbitre di siffler ma damay. patienter di sóor wala di non man li ma liggéey répété ko ci sama jour combat rek soobee yàlla ba bi sifle laa euh, ah, mais si en kay ñaata ñaata laa bëri ñaa sama sama sama premier combat ba sama dernier combat loolu laa bëri mus ah 15 combats 13 waa ñi nga xamante ne ñoom ñu ngi xaar tey jii Margaret même ko nekk sama kaw wala ma nekk sa kaw aussi tamit yaa defet waaw kon loolu moom nañ ko xoolaat tamit dañ ko wax te dee rek. <laughs> ba nga a neex na sama ma neex la. non comme combat ma li ma gën a neex mi ngi sama karam waaw amaguma ko aussi tamit xëy yàlla baax na daal ma nga li ma gën a neex mooy ma dem ba toog xam ne man mii li li ñëpp di wër am naa ko teg naa ko sama loxo waaw loolu moom mooy li ma gën a neex suma àdduna mais combat yi ma yi xamante ni bëri naa ko tamit am ci plaisir xam ni combat bii bëgg naa ko mooy sama combat parce que dama ko daan fekk euh, Lamsaar di ko romb fajar mi entraîné mu nekkoon mbër boo xam ne dafa am caaj xam nga jantal xam nga ma ko rombeek blouson mu fees dell ci blouson bi ma koy xool rek te boobu xam nga boo nekkee mbëru mbëru mbapat yi xam nga wala ngay xuus ci mbapat yi bëreegoo arène mama da ngay xool sax nit kii nga ne waaw man kii moom ni mu defa tool nii nan laa war a defa toolu ko xam ci daan doxtaan abi tamit super bada daf ñu daan gëmloo ni entraînement moo la fonk say làmb fonk aussi tamit li nga xamante ni moom mooy sa carrière aussi ci tànk yoo lañ nekkoon aussi tamit mu nekk mbër boo xamante ni bokk na ci li mooy njëkk a jooyloo ci làmb ba muy daan Ama Baldé defe naa bu maa ngi war a bëri na ko réel defe naa ci benn semaine boobu defe naa la combat yu dajaloo aussi waaw ba mu ko daanee nag jour boobu nag toog naa ne sama xel ak suma xol dinaa fexe ba reyante ba bëri nees pour daan ko. kon mën na ne combat boobu en quelque ci ne dafa am loo xamante ne da nga sa morom waaw dafa ma jëlee revanche sama combat Malick Niang ma jëlee ko revanche contre nees. loolu neex waaw man pour man làmb amul crise pour man li fi xew rek mooy crise bi ndax li fi xew bu fi nekkul woon defe naa làmb dina am sama juum. waaw mbas bi nag mooy problème bi. ndax est-ce que est-ce que est-ce làmb rek la baare. waaw mais làmb rek la ñuy waxtaanee tey fii. <laughs> voilà voilà ok moo tax ma xam nga àdduna fa dafa gudd tànk te euh, ñun làmb lañu xam ci làmb la ñuy dox aussi ci làmb la ñuy la ñuy yëngatu. te Sénégal moom bëri na sport yi fi nekk waaw mais su ma juumalee làmb lañu la ñu gën a favoriser ndax sax mooy suñu cosaan national moom la ñu am waaw wax dëgg yàlla nag bu ñu demee ba am lu ko baari aussi tamit euh, war nañoo xool li nga xamante ni may faay di ñu mën ko génne parce que déjà làmb avant coronavirus bi mi ngi xaw a yor tànkaneer waaw parce que yaa ngi dégg ñii di wax lii ñii di wax fee kii di wax fii mais xam nga lépp lu may wax rek mooy euh, lépp loo gisee waxtaan la. réeroo amul de ñàkk waxtaan dongaam tey promoteurs yi war nañu waxtaan ak mbër yi mbër yi ak promoteurs yi ak amateurs yi di toog di bokk waxtaan di bokk benn waaw ak benn déet su ko defee làmb dina mën a avancer ci si kanam mais tamit euh, li ma gisee aussi tamit kii nga xamante ni mooy njiit bees gi fi toog aussi tamit am nañ ci yaakaar ci CNG bi dañu waxtaanee ni moom. dañuy xaar moom mooy li mu wax noonu rek parce que tamit euh, aussi làmb dafa fu mu nekkoon dafa fu mu nekkoon amoon doole loolu mu commencé tànk ginnaaw yàlla def na ko fi nekkoon jëlee nañ ko fi waaw ah, moom moo fi toog moom xam na ràññee na moo ñu gën a xam làmb fuuf ndax làmb bi mu waxoon tëgg na ko ñun judduñu kon yàgg naa découvrir làmb te xam nga bu dara sax post yu mu taxawoon poste làmb la kon kenn gënu koo xam làmb li ñu xaar ci moom rek mooy euh, ñiy déggook moom ci kàddu xam nga ñuy bañ a réeroo ak moom ci dara parce que tamit. Euh, du du mbër bi du promoteur bi du CNG bi kenn ku ci nekk du chaque jour nga am la neex ci nit ki waaw kon nag li ci des mooy dañuy sabablu rek jéem a bokk benn xalaat bokk benn yéene xool li avancé loolu làmb ñu gungee ko ci aussi tamit waaw. xool benn xalaat benn yéene Sa Thiès Boy Niang woote gis nañu lu waral loolu. man de dëgg yàlla woon na ma mais jour euh, peut-être moment yi may war a fekkoon dama jàppoon trop. non dëgg li ma la ma woo na ma téléphone wax dëgg yàlla mais dafa fekkoon moment boobu ba may woo nekkuma fi woon waaw foogoon naa ni sax man balaa boobu dina fekkoon fi waaw. normalement moom voilà entraînement Covid moo fi am pour l'instant parce que tamit munoo ne yow da dem saal saal bi tëj nañ ko nga ne da dem diine baare nañ ko nga ne da nga géej nga fi géej fi des baare nañ ko léegi lan moo fi des. parce que non pas toog sa kër kese mais euh, am nañu coach yoo xamante ni professionnel lañu au moins dinañ la envoyer message bindal la li nga xamante ne mooy exercice yoo xam ne mën nga ko def sa biir kër sans problème waaw loolu la ñuy dundee. jëloo benn avance. non jëluma benn avance. <laughs> lekkuma xaalisu kenn. lekkuma xaalisu kenn kay xanaa wax ji leer est-ce que du yéene suite bi yéen. sa sa patron mooy suite bi. non non ma awma fu may toll xam nga xam nga tey ñun bëre la am bu fekkoon sama diggante garga tey man ak garga ñoo waxtaan pour tëgg si làmb si suñu bopp su boobaa dina am si mais ñun tëgguñu suñu làmb dafa koo xamante ni moo taxawoon bëgg a tëggal suñu combat malgré nag am na promoteur yi ko soxla ñeneen ñu bokk ak moom franchement parler mu tëgg yàlla am na keneen koo xamante ni moom pare na bu tëgg ko dama pare pour bëre man pa waxuma garga kase garga rek nekku fii moom laa moo dama dama pare pour bëri xam nga boo ne garga garga nga fi liib voilà <laughs> non pare naa waaw pour ñëpp dëgg yàlla doo bàyyi Salif Sakho bi te xam Sa Thiès la fente <laughs> xam ne maa ko dugal jox la mbër yi nga xam mbër nga jox ma seen fort seen faiblesse waaw mhm. dañu <laughs> garga waaw yor na taxawaay bu baax aussi ama ku ne xam na ni mm, taxawaay moom ma dëgg yàlla mat na mbër aussi tamit euh, bii xeex da koy jaar teg ci yoon aussi yor na foor woo xamante ne mbot ci la bokk waaw bu la ëñee taf la tamit mun na la wañ baraake la Modou Lo fooram mooy dafa sob dafa sob mbër la boo xamante ni xam naa ni plaqué tamit bëgg na ko mën nga ko jekk aussi tamit fa nga koy jekko pour daan ko moom ci lay gën a am foor génn ci loolu moom seetlu naa ko ci moom mën na xeex aussi tamit wax dëgg yàlla mbër la mën na bëre trop macha allah mu seen ndaama xasee ba jàpp du bàyyi xasee ba jàpp du boo ragalee ndox moom ndox. Eumeu daa ragal ndox kay moom yàlla yow loo ko sedd bi arrangé ko. instant man de dëgg yàlla maay sabablu ñu ma yàlla boole aussi tamit xam nga sumay kaa yu bëri ñoom ñoo ma ci jàppale ku ci mel ne Pape Mam Omar Bass. xam nga Moussa Fall Andaw Sayer xam nga dëgg yàlla am na ñeneen ñoo xamante nii dañuy yëkkati seeni alal di ma jox parce que tamit xam nga ñu ngi may taxaw daal franchement parler làmb bu dee li lay fay nga yaakaar ci làmb aw ala kulli aal sa avenir doo am doo ci am dara dara dara dara dara il faut nga am ñu lay jàppale jële soutenir burul làmb ak avant làmb parce que li lay fay au moins boo ko dugalee ci sëriñ gi yàlla xam ne sarax bu ñëwee doo fekk waaw Ah, man man huis clos dérangé wu ma xam nga dama dérangé man nañ may fay ma dem bëri ji mais est-ce promoteur bi promoteur bi mooy mooy mooy fay mbër bi tey li conséquence bi ci mën a nekk tamit man li may fay daf moo koy fay fa force mun naa am sama yéene nag nag carrément mun naa laa wàññi lii loolu sama diggante moom ak man moom lay doon gannaaw yàlla mais tey war dëgg yàlla promoteur bi xam nga moom mooy xam li ci conséquence ci biir stade bi moom moo organisé moom moo xam nan lay def yan PPV lay def aussi tamit bi ñuy def PPV nañ ko jaarale fi nga xamante ni mooy jaarukaay xam nga parce que tamit am na ñu bari tey dañuy xaw a ci PPV yi xam nga loolu tamit da ciy da ciy joué te il faut tamit ñu jàpp ci jàppale mbër promoteur bi xam nga tey loolu lañ ko mën a jàppale. te da ngay jàppale xam nga dara méttiwul wax loo mën d'accord ci loolu mën loolu dong moo fi nekk waaw dama lay tëggal lii nga may fay mënoo loolu nel mënuma ko. xam nga nga wax li nga mën après bu ko defee ah dëgg yàlla boo ci amee ndam alhamdulilah boo ci gaañoo tamit nga xam yaa waxoon yaa waxoon loo mënul waaw mbër moom jaru kenn ko jox toor ci yenn yi ay day fayeeku lu seer ak fii dara seeru fi espoir war nañ ko mën a yóbbu ba war nañ ko mën a élever ci ci ba ci ba ci ba fuñ war nañ ko mën a séntu foo xam ne sax fooguñu ko fi woon parce que tey li ngay gën a fay mbër bi dem sponsor loolu la ñu war a gën a mën a yokk pour jox la ko nga jàpp sa làmb bi war cee mën a jàpp ak yeneen ak yeneen ak yeneen xam nga parce que làmb loolay doxal may tamit yenn saa da ngay gis kii dañaan kii daa gàtt xel gala gis kii daa gàtt xel ndax am na ñoo xam ne day joxe juróom bëgg am bénéfice 250 waaw loolu tamit a ah, dëgg yàlla loolu ci mbaaxum yàlla suñu borom rek la mën a nekk ak combat bi ngay tëgg waaw parce que làmb am na ñaari façon mën ngaa mën ngaa tëgg làmb joo xamante ni tey làmb amateur la waaw loolu dafay am waaw day des saa nga tëgg combat boo xamante ni xam nga sa combat bopp lay doon yow yaa ko bëgg à personnel loolu doon benn moo tax képp ci tëgg lamb tamit tëggal fu la ñëpp di xaar xam boo ko tëggee si itam gëm naa ni nga gis làmb amul pertement ci condition nga jaar ci jaarukaay bi. am na ko mën a cukkuleeg ma man de man du ma arbitre mu toll nii daa ma ah. neutre rek ndax xam naa ni. wax nañ ko wax non xam nga sama <laughs> yàlla baax na ah ñuy de Guédiawaye luñ koy woowee. alaaji ah, alaaji fii <laughs> roi des arènes ah, ndax daa da koy sëmbi ci benn tàkkusaan a xam. d'accord ñii waajal waaw suma projet nag mooy euh, dëgg yàlla jéem a def li may def jóge fi seet leneen ndax ku ne xam ne làmb moom ñaanuma yàlla bëre suma carrière yëpp te def ko ci làmb waaw bëgg naa roy ko ci mel ni comme Tyson bala Gaye ñoom Modou Lo exemple leen rek ñooy Bombardier dèjà yaa ngi gis euh, peut-être nag euh, dafa niveau booy toll soo amul jàppale aussi tamit doo mën li nga investir yi nga bëgg a def doo ko def waaw parce que tamit ñu ko fi def ñëpp bañ ko bañ ke bañ yem temps bi dañoo amoon xam-xam bi ñuy jaar xam nga amoon xamoon yoon bi nga xamante ni aussi tamit fii la ñu mën a jàpp pour am ko aussi tamit ñi la ñuy ngi taxaw mais xam nga tey jii mu ngaa fay ko cent millions amoo jàppale aussi tamit day métti ci yow mais nag ñaan nañu yàlla daal jéem a ndax moom moom toggal de te yéen ñëpp a ñoo far maa <laughs> waaw maa caabi. maa tëj de yaay maa tëj. Ah, <laughs> maa ngi maa ngi maa ngi ñëpp aussi euh, di ñaanalaat rek comme ñu mën a wax rek euh, ñi génn àdduna aussi itam yàlla leen yàlla yërëm taxaar leen àjjana ñi tëdd hôpital aussi yàlla yëkkate leen ñuy caay féete ginnaaw yàlla ñu caay féete kanam ñi nga xamante ni seen loxo aussi tamit jotu seen i ginnaaw yàlla taxaw leen di ñaan yàlla Sénégal yàlla na fi jaamu yàgg maa ngi gërëm ñëpp ñoo xamante ni ñi ngi may taxaw wax dëgg yàlla sëñ mu leen taw feex aussi tamit maa ngi koy remercier bu baax a baax a baax a baax di ko gërëm di gërëm njabootam ak yaayam ak famem ñëpp waaw di sant bu baax a baax Omar Baas aussi tamit wax dëgg yàlla suma nit ko baax la dëgg yàlla xama burul dara ba dara sax xel bi muy nàcc sama côté rek moo moo ëpp opportunité que sama diggante moom ci leneen beneen bi ci des maa ngi sant Andaw papa maam Moussa Fall ndax Andaw moom papa maam dëgg yàlla mention spéciale maam moom dama ko yërëm sax ci yenn yi waaw ndax Abdou Diouf moom moo xam ne moom day siisu ndax moom mooy taaw may caat xam nga di gërëm sayer di gërëm sama yaay di gërëm sama papa di ñaanal sama papa si tamit yàlla yëkkati ko ci jàmm di nuyu sama famille sama njaboot yëpp xam nga soxna si aussi tamit maa ngi koy nuyu di nuyu Sénégal monde entier ñu may dimbal ak ñu ma limul ñoom Papi Sané xam nga Omar Boulangerie Omar Touré comme moom nee na bëggul wax bëggul dégg Omar <laughs> Boulangerie Omar Touré maa ngi koy sant bu baax Omar Sakho xam nga di ko di ñaanal aussi tamit ñoom Aziz Ndiaye Simon taala Meng xam nga euh, Baye Ndiaye xam nga dañ ñaanal tamit euh, fa ñu dem yàlla andiwaat leen ci jàmm te lañu ñu fa ñaan aussi tamit yàlla na ko yàlla suñ borom mottali ci barke alxuraan di gërëm ñëpp nag Sénégal monde entier di jégalu aussi tamit bu ñu waxee loo xamante ni euh, neexu leen te xam ni ñett koy juum yàlla rek a du juum. sant naa la aussi tamit gërëm naa la waaw sa bu baax bi mais nag ngeen maa fi ngeen def ko nànk <laughs> waaw. aussi tamit di nuyu Badara commissaire xam nga euh, Karfat aussi tamit maa ngi koy jaale bu baax a a baax baax ndax koo xamante ni yàggul dara da nga ñàkk waajur bu góor même pas vingt jours presque wala vingt cinq jours nga ñàkk ci waajur bu jigéen dafa métti maa ngi koy ñaan aussi tamit seen yaay waajuram yooyu yal na leen yàlla yërëm te xaar leen àjjana di ko ñaanal yàlla may ko xolu muñ xama di gërëm bu baax a baax njaga doole simel xama ndax dëgg yàlla ñu ma ànd ñëpp maa ngi leen sant mafia bi ñëpp waa gàlle bi waa koñ bi aussi tamit sant naa leen gërëm naa leen dëgg aussi te maa ngi koy ñaanal rek yàlla may ko wér ak sama rakk yeeg nga xam te ne nii mooy acteur ba di jaajëfal sama équipe di di daje ak beneen mbir incha allah.